amoon na benn bésu noflaay Yeesu jaar ci ay tool yu ñor fekk ay taalibeem xiif ñu di fàq ay gub nag di lekk farisiyen ya nag gis ko ne yéesu gisal say taalibe ñu ngi def lu jaaduwul ci bésu noflaay bi noonu Yeesu tontu leen ndax jànguleen la Daawuda defoon ba mu xiifee moom ak ña mu àndaloon xanaa yëguleen ni mu dugge woon ca kër yàlla ga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 sama jigéen ak sama ndey